ndax yàlla naatal xarnu bi noo ngi dagaan ci Musaa mi nekk marwata ak safa ak àqi am di Musaa ndax yàlla naatal xarnu bi ak àqi mboole may rakam ak àqi seen baay ñoom ak àqi ya Bàmbaam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 tabbat nu ngal la daam rogginu mboolem xërnu bi bal sa doom yi yépp boot ñoomit ñu boot seenu njaboot ku mënta boot nga jox ko mboot ndax yàlla naatal xarnu bi dafa murid yi suturaal mottali jàkka ji ñu naal foo dolli sunnalaal ndax yàlla naatal xarni bi ndax yàlla di musa tabakh juma yi musa bam tol ne marwata ak safa ndax yàlla naatal xarni bi mbollem murid yëpp ngi joy ngir luñu bay mu dal di gooy ba seene diyaa boy sarahnu natal nu bi jamono jaa ngi xiif xiif luñ togg bar ni ko fuuf Cheikh Bamba neel ngeen ji mu dellu naatal xarnu bi xiif tax na ñenn mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yenn tooli booy Sering bi geesul xarnu bi tax na ña daa joxe ngi laaj ñi sas di Kendo kenn dootu dem fen ba waaj sëriñ bi geesul xarnu bi bekkoor bi tax na xol yi bi tax na cër gi tax na bi xarnu bi sa dem gi tax na ñépp jooy nawet yi sax dootuñu tooy léeg-léeg mu war ba gooy waay Mbàkke jeesul xarnu bi waay Mbàkke jeesul xarnu bi bi xam nañ ni yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu roñal daanu dëggal feesal nga saqi xarnu bi sërmandee nu daa defal lu xel dajul daanu fabal daanu tibal daanu leyal reggal nga mbooleem xarnu bi sërmandee nu daa sanal jigéen ñi yaa ñu daamal tey ñëpp yam kenn amatul waaye mbàkke jeesul xarnu bi sëriñ bi jeesul xarnu bi ñoo seeni sag saggiku na ñoo seeni gaay daggiku na ñoo seeni ngëm rékkiku na ngir ñàkk gi ci xarnu bi at moo ndax mu tane daaw muy gën a far dellu gannaaw barab yu sax dinaaw ay mbàkke jeesul xarnu bi ay mbàkke jeesul xarnu bi wuy nu wuy noo ko torox wuy nu wuy noo ko torox yalwaa mu ku la sarax garab bu daanoo xob ya lax bambaay ndaa njaama xernu bi garab gu mag bu ne jirim garab yu ndaw yi jirim meññaan ma say mbir maalem lii rekk dal waa xarnu bi allahu akbar allahu akbar الله أكبر زمان جمعنا مومن سفان خيولي دفدا ولنغا جدبي بوليم خرنوبي الله أكبر زمان جمعنا مومن سفان خيولي دفدا ولنغا جدبي بوليم خرنوبي لبيك shikeeki shaf xaraan lan daa diwoo muy walangaan nuy xelli kopp ya dinaan watay korne xarnu bi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah safirullah alazim safirullah alazim tuub nanu lan daa defi ko te muy lu neexuloon boroom njur belewu te xarnu bi xéewal yi daf daa walwal yi ba woon ci nun di kel-kel yi moo tax mu jug di pel-pel yi sëriñ bi geesul xarnu bi xéewal yi daf daa walangaan wax seen nga wute nga ak xamu xurëg dund ak seyaan sam mandal xarnu bi wàcc nga yow la ma sa wax def nga ko jox ku mata jox daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoonu ñaax seddoon nga mboolem xarnu bi daawoonu nax daawoo nu ñaar séddal nga mboolem xarnu bi gàncax gu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar kenn wuddatul moo tax ma naa la suuxatal njëmbat li woon ci xarnu bi njëmbat li mooy gaa yi di ko ci xeewal yi fi woon tey ñi ngi def ya ñu bon ngir ñàkk gi ci xarnu bi ak ñàkk a bon ci waaju baax ak ñàkk a ci waaju baax day tas këram xalam di jaax daa ceebu tey ngay yañe laax daa ceebu tey ngay yañe laax jaaxal na mbooleem xarnu bi léeg-léeg nga gis fii murit muy taxawaalu ne mërit wala mu xàcc def turit ndaw njombe gaañi xarnu bi ànd ak commerçant yi di jaay ñii di wajaa siri baqaay te xam ne yaa doon sunu baay moo tee nga naatal xarnu bi te xam ne yaa doon sunu baay moo tee nga naatal xarnu bi ñi leen ngi xàcc defi chef ñii defi dàkk ngir bañ a loof ñii daw baraw dey nu xi nga naatal xar nu borom tuuba moo nga naatal xar nu moo tee nga naatal xar nu wi yow la nu yaakaar abada ngir yaa nu tàggaleeg bi daa tuum nanu mbooleem la nu daa ci xeji xar nu wi yërëm nu tey yaru nanu dootu nu fo xammi nanu dootu nelaw yewu nanu yërëm nu naatal xanu bi ram tuuba yërëm nu tey yaru nanu dootu nu fo xammi nanu dootu nelaw yeewu nanu yërëm nu naatal xanu bi sunu joxoon lanu yoroon dootu nu def lanu defoon xanaa yëgoo yaru nanu ku weddi laajal xanu bi sunu joxoon lanu yoroon dootu nu def lanu defoon xanaa yëgoo yaru nanu ku weddi laajal xanu yërëm lu nan torox lu nan jooy nanu ren saraxtu nan soppiku nanu jébbalu nanu sarax nu naatal xarnu bi ram Tuuba sarax nu naatal xarnu bi yërëm lu nan toroxlu nanu jooy nanu ren saraxtu nanu soppiku nanu jébulu nanu sarax nu naatal xarnu bi nun toxu nan sun këri baay gàddaay def la sunu baay tuuba di bamba di waay sëriñ bi geesul xarnu bi tuuba di bamba di waay sëriñ bi geesul xarnu bi murid yi saali nanu ren ngir xam ne yaa leen amewoon yaa leen joxoon lanu yoroon yóbbu nga booti xarnu bi yaa leen joxoon lanu yoroon yóbbu nga booti xarnu bi bawal bawal jolof jolof mboolem pëlëg naar ak wolof kenn gisatul ko am yëf sëriñ bi geesul xarnu bi koo xam ne daana mi jaag daami angaara ki jóg mi at mu am del mu jeeg sëriñ bi geesul xarnu wi ku ma yaari wata soxla na ren ji ñaari moto te mën taam njëgu moto sëriñ bi geesul xarnu wi koo xam ne daana mi taax tey mi ne ngee jëm néeg bu baax bu bam na ca faax sëriñ bi geesul xarnu bu gën a féex bam na ca faax bi jeesul xarnu bi kër yaa ngi wéet ba ñu wéng lal yu ñoroon defi korom kër yaa ngi wéet ba ñu wéng lal yu ñoroon defi korom e dooni wuur defi koyom sëriñ bi jeesul xarnu bi tubaab yi sax perte nañu ñi leen perdi nañu yahuud yi sax fayit nañu moo tee nga naatal xarnu bi tubaab yi sax perte nañu tubaab yi sax perte nañu ñi leen gëmoo nit perdi nañu yahuud yi sax fayit nañu moo tee nga naatal xarnu bi ñu tukki woon far nañu lam fun jubli dee si leen falan adduna yaaka naa bi jeesul xarnu bi ñu tukk woon far lan fu ñu jublu dees falan adduna yaa kanaawalen sëriñ bi jeesul xarnu bi naar yaa ngi yalwaan ak xeer cheikh bun xamoon dellu fajar kenn teletul loo joxi naar sëriñ bi jeesul xarnu bi wuy mbàkke yuuxu ba dee wàllu nu booyee xeenu dee melel ne kuy ramu dee yaa nu tinul waa xëm wi mbakke yuuxu nan ba deewal nu wu mbakke yuuxu nan ba dee yuuxu nan ba deewal nu booye xenu dee booye xenu dee mel na kuy ram ku dee yaa nu tinul waa xëm wi yu Mbàkke yuuxu nan ba dee wallu nu boo yeexee nu dee melal ne kuy ramu dee yaa nuy tinul waaxar nu bi Cheikh Muntaxa Mbàkke yow yaay danay Muhammadu Cheikh Muntaxa Mbàkke teer nga booti Hamidu man nga defar waaxar nu bi